askanu esawu saar fanweer ak mi ñuy wax edom mooy lii esawu jël na ay janqi kananeen jabar ñooñoo di ada doomu elon eteen ba ak olibama doomu ana mi doomu sibeyon ewen ba ak basmat doomu ismayla di jigéenub nebayot ada am ak esawu elifas basmat am ca rebel olibama am ca yewus yalam ak kora ñooñu ñooy doomi esawu te mu am leen ca réewu kanaan ba loolu amee esawu ànd ki soxnaam ak i doomam yu góor ak yu jigéen ak waa këram ñépp jiital géttam ak juram gépp yóbbaale mbooleem alal ju mu amoon ca réewu kanaan daldi sanc meneen réew ngir sore rakkam yanqooba li ko waral mooy seen alal dafa bare woon lool ba mënuñoo dëkk ñoom ñaar te réew mi ñu daloon àttanu leen ndax seen gétt yu bare esawu nag dëkk ca tundu seyir esawu moomu mooy edom askanu esawu di maami edomeen ya ca tundu seyir mooy lii doomi esawu yu góor ñooy elifas mi mu am ak soxnaam ada ak rewel mi mu am ak basmat doomi elifas yu góor yi di teman ak omar ak sefo ak gatam ak kenas na moo doon takkoob elifas doomu esaw moo am ak elifas amalek ñooñoo xeetoo ci ada soxnas esaw doomi rewel yu góor yi ñoo di naxat ak sera ak sama ak misa ñooñoo xeetoo ca basmat soxnas esawu soxnas esawu si ñu naa olibama tey doomu ana mi doomu sibeyon moo am ak esawu doom yu góor yi yewus yalam ak kora langi doomi yu góor nag ñooy ñii ñi askanoo ci elifas taawub esawu ñuy teman ak omar ak sefo ak kenas ak kora ak gatam ak amalek ku ci nekk ak làngam làngi elifas ya ci réewu edom a ngi noonu ñooy sëti ada ñi askanoo ci rewel doomu esawu ñooy naat ak sera ak sama ak misa ku ci nekk ak làngam làngi rewel ya ca réewu edom a ngi noonu ñooy sëti basmat soxna si esaw ñi xeetoo ci olibama soxna si esaw ñooy yewus yalam ak kora ku ci nekk ak làngam ñoo ñooy làngi olibama soxna si esaw si doomu ana ñoo ñooy doomi esaw mu ñuy wax edom ñoo ñooy doomam yu góor ñoog seeni làng lu jëm ci askanu seyir doomi seyir ya bokk ca waa or te sancoon ca réew ma ñooy lotan ak sobal ak sibeyon ak ana ak dison ak eser ak disan ñoo ñooy langi waa or di sëti seyir ya ca réewu edom doomi lotan yu góor ya nag ñooy ori ak emam jigéenub lotan di timna doomi sobal yu góor ya di alwan ak manaat ak ebal ak sefo ak onam doomi sibeyon yu góor di aya ak ana te ana moomu moo feeñal bëti ndox yu tàng ya ca màndiŋ ma ba muy sàmm mbaami baayam sibeyon doomi ana ñooy dison ak olibama doomam ju jigéen doomi dison di emdan ak esban ak yitran ak keran doomi eser di bilan saawan ak akan doomi disan di uus ak aran lu jëm ci buur ya jëkka falu ca edom langi waa or ñooy ñi askanu ci lotan ak sobal ak sibeyon ak ana ak dison ak eser ak disan ku ci nekk ak langam ñoo ñooy langi waa or nañu xajalikoo kenn kenn ci réewu seyir buur yi falu ca réewu edom lu jiitu kenn ci waa israel di fa falu ñooy ñii bela doomu beyor falu na ca edom dina ba moo doon péyam ba bela faatoo yobab doomu sera ma dëkk ba sera wuutu ko ba yobab faatoo usam mu diwaanu waa teman wuutu ko ba usam faatoo adaad ma dàqoon waa majan ci réewu moab tey doomu bedaad moo fal wuutu ko awita doon péyam ba adaad faatoo samla ma dëkk masreka fal wuutu ko ba samla faatoo sawul ma woon ca réew bot efraat falu wuutu ko ba sawul faatoo baal anan doomu akbor falu wuutu ko ba baal anan doomu akbor faatoo adar ko paw moo doon péyam soxnaam di mi meta redd doomu mesaab di lang yi sosoo ci esawu nag lang gu ci nekk ak turam ak njaboot ya mu ëmb ak gox ba mu dëkke ñoo di ñii ñi askanoo ci timna ak alwa ak yetet ak olibama ak ela ak pinon ak kenas ak teman ak mipsar ak magdiyel ak iram ku ci nekk ak langam ñooñu ñooy langi edom ma ñu naa esawu moom ma giir edomen ñi lang gu ci nekk ak gox ba nga dëkke te moom ko